mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ginnaaw bañ sante yàlla julli ci sang-sang yi seydina muhammad alayhi salaatu wa salaam dugg ci koor gi nga xamante ne mooy weer bu tedd bi di ñaan yàlla sama borom ñu commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim waaye ñu jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag ñu nekk ci suñu émission laajum koor fii ci Sen TV ma taxaw ak euh, oustaz Guèye balaa ñu koy laaj suñuy question nag benn ba ñaari question dinañ ko bàyyi moom ñu dalal ko mu daal di nuyoog waa ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan ala kulli haali oustaz maa ngi lay nuyu di la ziyaara waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Albekaay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yow itam di la ziyaara di macha allah kontaan ci sang yi nga xamante ni ñooy bàyyi xel télé bu mag bi. tabaarakallah TV. wallaahi macha allah di la ndokkeel itam di ndokkeel wa adduna yëpp ci weer wu tedd wi. macha allah weer wu sell wi weer wu mag wi nga xamante ni. Mm-hmm. jullit ñi seen ngëneel ci la ko yalla di gën a yokku. macha allah muy weer wi nga xam ni weer sutura la. Mm-hmm. weeru teraanga la weeru tawfiq la. ñaan yàlla rek comme ni ko ñaanee. Mm-hmm. nit ñi dugg ci bismillah rahmaani rahim. génn ceeg alhamdulilah waaye nag di la ndokkeel macha allah ci premier ah weer bi daal ak ak ni mu mer rek macha allah. xam naa ne xëy na koor gee ñu xaw a jàpp ndax dañ ko gëj a def. Euh, mu nekk premier jour koor gi ala kulli xaali oustaz kontaan naa ci yow di la jaajëfal bu baax a baax a baax waaye damay daal di xuusandi dugg ci li nga xam ne moom may laajum koor. <laughs> waaye kii premier ñu premier question bi nga xam te moom laa lay wax kii dafa ne. man du ma du ma sekk ak sama borom kër ci jamono weeru koor du ma lëkkaloo ak sama borom kër ndax li nga xamante ne bugguma dara lu may yàqal ci li nga xam mooy weeru koor est-ce que loolu lu wér la wala loo ciy xalaat oustaz. <laughs> jaajëf seexal bekkaay macha allah indi nga question bu am solo. Mhm. loolu nag macha allah kooku li nga koy tontu mooy. weeru koor yàlla bi mu nee nañu woor dañ ni nañu woor waaye nag nañu bàyyi lekk ak naan ak mboolem loo xamante ne rek lu aju la ci wàllu diggante góor ak jigéen lu aju ci wàllu sékk ak sa soxna ak yu mel ni ki noonu mhm. waaye nag borom bi subhaanahu wa taala dañi bu leen ko def ci diiraawu bëccëg bi maanaam mhm. bu leen ko def bu nu demee ban ni asalaatu xayrun na an mi ba keroog ñi dem ba jant bi di dugg di heure boobu rek mooy heure koor gi bu heure boobu xasee jàll macha allah may nañu kenn ku ci nekk ku ci am soxna may na la nga delluwaat ci sa soxna macha allah li war sa diggante ak moom nga continuer joxe ko loolu rek mooy li nga xamante ni mooy li te loolu la sunu borom subhanahu wa taala wax alhamdulilahi rabil alamin kon loolu leer na ma daal di dem ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu question bi ñaareelu question bi moom mooy kii nee na damay faral di woor waaye la daal laa tayal di ko def est-ce que euh, ñàkkat naafila dina yàq sama koo dara wala du ci yàq dara macha allah jaajëfat waat encore seexal bekkaay naafila moom ci jullit dafa doon loo xamante ni rek day yokku sa yiw mm-hmm. naafila dafa doon loo xamante ni boo ko defee yàlla waaye kon dañ ne weer wi weeru promotion la weer la boo xam ne loo ci def yàlla da koy ful moo tax ñu bëgg nga siy saraxe lu bari mm-hmm. di ci def ay ibadaat yu bari mm-hmm. rawatina nag sa naafila ñu bëgg nga di ko yokk mm-hmm. waaye naafila ak koor jotewuñu dara nit ki même bu wóoree te naafilewul itam teewul am na koor naafila gi nag soo gisee ñu di ko baril wala ñi di ko def kon ka dañ ñu weer bi lu ci waay def ñu yokk ko moo tax ñu bëgg ngay yokk say naafila waaye koor gi daal moom ak naafila yi jotewuñu dara mais nag ki ko def ki def naafila moom kooku macha allah dinañ ko def defal tuyaaba bu baree bari mhm. mais nag ki ko deful nag teewul am na koor mhm. parce que koor gi ak naafile gi mhm. jotewu na dara Cheikh Albekaay yi ala kulli kon question yi ñaar lañ amoon tey di laaj ko ki nga xam ne moom mooy oustaz Gueye boroom xam-xam bu set bi sell bi nga xamante ne tabaarakallaa Euh, di la jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yow si suñu euh, premier épisode di fas ne incha allah taala bu suba nii lañ koy defee ak yéen di leen wax ne rek euh, aboon leen ci kër gi seen TV ala kulli fii la lépp di leeree ci weeru koor gi ci li nga xam ne mooy émission laajum koor asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.